jërë ngeen jëfé ci seetaan beeg top bi alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh yéne ci seen chaîne HD 221 TV ci non nak ñu daal di ku né foofa ca Burkina Faso gannaaw ay fan ba ñu suspendre li di France 24 wa Burkina Faso nak daal di jël ap décision bu yes décision bobu nak du len rek lu dul ña ko jëmele ci média yi nga xamanteni ay média français la bu ñu ci wa RFI la xamlé moy seen ñooñu xamle mooy ñaari correspondant yoo xamante ni ci média français yi euh, fa la ñu nekk daanaka rek dañ leen a dàq foofa ca Burkina Faso euh, ku ci mel ni euh, Angers Fèvre ak nekk ci Libération ak ki nga xamante ni mooy Sophie Douce nekkoon ci quotidien ñoom ñooñu kat dañu leen a daal di dàq rek ca diwaanu Burkina Faso ci noonu nag ñu nemeeku ne la tax ñu dàq leen ba tey jii rek kenn mënu ko wax xamuñu lu xew ba tax rek ñu daal daal di leen euh, dàq ci noonu nag euh, ñun waa rédaction 221 TV euh, dinañ leen ko toppal ba lu ca xew rek ñu daal di koy mën a lëñbët ba xam lan la lan moo waral dàq boobu ñu leen dàq ca diwaanu Burkina Faso nag mbokk yi li moo nekkoon li gënoon a fës ñu ngi leen di ñaanal jàmm di leen jox dig daje ba ca kanam incha allah.